Elvision Média Elvision Média way naa la. mbokk internetu Elvision Média ñu ngi leen di nuyu di leen ziar kenn ku ci nekk sa tur ak sa sant di am contentement toogaat fii di leen présenter seen émission vision ensemble tey ñu am aussi ñaari invité yoo xamante ni ñi ñu bàyyeeko ba diwaanu si Sicap Mbao ñu dugal suñu invité muy euh, grand Pape Gueye nekk ci euh, le coordonnateur du mouvement aar Diamaguène Sicap Mbao ñu amaat keneen kii di docteur Malé di benn jeune boo xamante ni ñu ngi bokk biir APR grand Pape ngi nuyu di la ziar. waaw ñu ngi leen di fay di leen ziar bu baax maa ngi tudd Pape Gueye président mouvement aar Diamaguène Sicap Mbao dëkk aussi ci commune Diamaguène Sicap Mbao ñu ngi leen di bu baax. merci grand Pape ñu ngi am contentement boobu di la dalal ci El Vision. docteur Malle nekk un jeune bu nekk biir APR docteur ñu ngi lay nuyu di la ziar. maa ngi lay fay di nuyu mbokk internetu El Vision Médias sama grand bi nga xam ne moom laa nar a partagé plateau bi di Pape Gueye di président coordinateur Aar Diamaguène. président gannaaw bu ñu la nuyoo suñu première question dañ lay laaj lu waral Aar Diamaguène. waaw Aar Diamaguène si Kambaaw. li ko waral mooy mouvement la boo xam ni euh, dañ dañ ci dañ xool commune bi dafa bëri ay manquement waaw mm-hmm. euh, bëri ay détails yoo xam ni daal dafa dafa ëpp bi ñu demee ba xool yooyu ay anarchie yoo xam ni day day am te neexul doomu aadama yi si lañ waxtaan pour booloo pour xeex loolu loolu moo waral aar aar jàmm gën si. boo nee maa manquement. dafa mel ni dafa am lu doxu am lu dox. waaw commune moom manqué. waaw commune jàmm gën si Kamba li mu manqué bari na. commune jàmm gën si Kamba li manqué bari na par exemple lu mel ni stade bu jeunes yi di footballé. mën nañu amu fi parce que bi fi nekk day am ndox chaque année. Hmm. presque plus de plus de plus de sept ans ngi nii si ay nawetaan. dañuy mujj dem LG yu mbaaw di àbb. Hmm. bu ñu abalee waa zone bi quelque temps ñu dàq leen. Hmm. ñuy toltolaan ci stade stade yi. te xam nga loolu dafa doy waar. mais stade bi ñu ngi koy defar ak. non stade bi stade bi ñu ngi koy defar. Mhm. mais mën mën mënaguñu wax ni ñu ngi koy defar. parce que suuf lañ gis ñu sotti fa ak béton. kon loolu yaakaar naa tamit nawet bi ñëwee taw na affaire yi dem kon foofu defar defar amagu fa. te du loolu noonu rek la la la la Diamaguène Sicap Mbao soxla. Ah. fii war na mën a am complexe sport foo xam ni bu du euh, jeunesse bi soxlaa seen bopp pour dem foofu def sport comme ni nga koy gisee pratiquement ci yeneen communes yi. Hmm. loolu war na fu mën a am. mais ba tey am am amul foofu noonu. comprendre nga. Hmm. amul li fi manqué daal bari na ko tali baaxul comprendre nga. Hmm. bu tawee day am ndox. canalisation yi ñu commencé woon yeggul fenn comprendre nga mënul jël ndox mi yooyu yëpp ay manquement la yoo xam ni comprendre nga moo tax aar jàmm bente ci suñ ak suñuy poos hmm. yaa ngi dégg di dem di ci jàpp ci nun ci mën a jàppee ñu ngi jéem daal mënuñu matale lépp ñu ngi ñu ngi jéem muy ci Covid bi jàll ak leneen ak leneen lépp aar jàmm gën si gàmbaaw am na lu mu ci def d'accord loolu dinañ ci ñëwaat docteur euh, docteur nga yor casquette politique APR te ñu gis ne APR ci biir jàmm gën Sicap Mbao ou bien au niveau national bëri na ay manquement yoo xam dafa am yéen seen biir parti parce que xeex bi bëri na trop yow lan nga mën a wax ci loolu. Ah, merci beaucoup Sidi si question bi. Mhm. d' abord di présenter wu waat mhm. rek. docteur Malem Mboup. Mhm. Euh, membre si alliance pour la république. membre à part entière. fondateur. Euh, jeunesse républicaine bi di ñëw tuuti rek ci question bi nga posé mhm. euh, suñu ñëwee rek historique mhm. tuuti ci li tax affaire fondé mhm. dañu jógee benn parti au pouvoir gis lu ko président subiroon mu créé parti en 2008 tey mën nañu ne 2008 ba 2012 quatre ans la accédé au pouvoir amoo possibilité wala bokk réorganiser ce parti pour mën a structurer parti bi loolu aussi dafa jur loo xamante ni ku si nekk ay choc d'ambition am si parce que parti au pouvoir mooy président parti bi nekk le président du parti le président de la république mm-hmm. dafay nekk problème pour moom pour muy mën di dajale nit ñi di régler mm-hmm. problème bi chaque jour sur les cinq cent cinquante deux communes mais mm-hmm. dafay nekk ku si nekk dina am coordonnateur wax aussi dina am choc d'ambition choc d'ambition yooyu moo waral jaxasoo yi ko joxoo yi ay chaque jour nga gis benn instance bu ñu am fii wala coordinateur bi ak ku koy tendance. Hmm. loolu fépp la aussi si parti bi. que tey boo xoo ci ñuy def loolu. parce que tey gis nañu ne jeunesse républicaine tout court biir APR. tey nga ñu nekk le fondateur de jeunesse républicaine libre comme si que dañ leen a nootoon wala da nga bëgg am seen liberté ou bien wala da nga génn APR. non du ay gens ku ñu noot wala dara.

wala kaay xasal ma diw wala kaay jàkkaarloo diw wala loolu tey mën nga nekk ak responsable tout le am ay rapport ak beneen responsable boo xamante ne ñoom ñaar dañuy jubóo ñu si si ay point de vue d'accord ñu si si ay idéologie si loolu aussi tey waruñu la tënk jeunesse bu libre la suñu liberté boobu la ñuy incarné moo tax ñu créé jeunesse républicaine libre mais nekkul ne dañuy tendance dara parce que ñun am nañ vision boo xamante ni président bi moom nañ xalaat la am si parti parti mooy lan avenir parti ñen ñooy après Macky ñun ñoo koy parce que nous parce que dafa ne ci dafa am docteur nanguwul ku diriger moo waral mu créé jeunesse républicaine libre parce que jeunesse républicaine am na Nous donc boo ñëwee ci biir jeunesse républicain boobu nga créé waat libre donc yow bëgg parce que nekkul aussi jaxasoo pëccëxoo bi am biir projet yëpp aussi ak APR rouge bi yow tamit sa loxo tax na ci quoi. xam nga ñàkk xam mooy waral loolu. Mhm. xam nga tey li ma doon wax léegi tey suñu nee ko koy diriger rek loolu ñu ngi si lan si benn taxawee benn hypocrisie. Mhm. def égocentrisme. Mhm. ni ñu ko mën a waxee loo xamante ni tout ñun. suñu philosophie esprit ubuntu la ñuy doxee esprit ubuntu mooy lan mooy le jeu tire nous la fraternité républicaine tay mooy lan tay mooy lan yow mii mën ngaa accéder fenn waaye fa ngay accéder hmm. li nga fa boo fa nekkee noo ko mën a def muy xëcc ña nga ñi ñi nga xam ne xam na leen yëpp ñu ñu accéder fa hmm. bu ko defee tay njëriñ bi hmm. mën a laalaale ñu bëri du nem jëm si yow kese loolu mooy tey ñun suñu tey fexe ba képp kuy républicain si xalaat ñu yokk ko si xam-xam si tey pour mu mën a épanouir ñu fexe du mu ko defee pour mu mën a tey njëriñ dëkkam njëriñ askan wi li may wax nii li may wax nii man je suis pas du tout d'accord convaincre ma ci question bi ma la posé man la nanguwul ko ko diriger moo waral mu créé je ne mooy ñëw xam nga tey cest à boobu boo bëggee développé avec le temps day xaw a kii quoi. non xam nga xam nga tey mosuñu dégg que ni Mandé mooy coordinateur jeunesse républicaine. mais yaay la membre fondateur. l'un des membres fondateurs. l'un des membres. yokk nga ci loolu. waaw ok l'un des membres fondateurs. kon du mën kese. xam nga ñi nga xam ne ñoo xalaat loolu ñoo. Mhm. benn ñu loolu ñaar aussi. Mhm. man j'étais le coordinateur du mouvement élèves étudiants républicains. ouais. j'étais le coordinateur parce que je ne suis plus étudiant. bi mu jotee dama jël nit ñu ñëw si ànd di liggéey. Hmm. te j'ai toujours. Hmm. accepté wala boog mu yàgg naa nangu. Hmm. nit diriger ma tey coordinateur jeex. parce que est-ce que nekkul daam loroon xaar jotoo ko après cinq ans te su fekkee mandat bi si yaakaar dara. cinq ans mi kon doon doon demandé dañuy defee deux ans la taxaw laaj bi laaj. parce que ay termes sax yu yu nga xam ni moom ak ay nitam yàgg nañ ko utiliser mooy chantage ak menace suñu daw menace suñu daw chantage mais loolu xam nga tey su fekkee chantage rek la oh. ñun de deux mille quatorze mm-hmm. à deux mille dix neuf non da ngeen ko chantage ko joué ngeen chantage daal ko joué jubóole nañ leen deux fois troisième fois bi la kenn a vu pas mal d'offres par rapport ak loolu yëpp bi ah mais no non fii lépp lay leer non docteur docteur. dañuy dañuy leeral ma leeral. non da ngay booy leeral da ngay wax ak internet bi. damay leeral. yan kooku nga ma dégluwul affaire yi du leer. na ay a manglé mu ngi waxee ne mu ngi waxee ne est ce que manglé bu ko séesu waay peut être am na ñuy xalaatee loolu. nekkul sa bopp am na ñuy xalaatee loolu. mais yow question boobu après nga def ko question ñu répondre am na ñuy xalaatee loolu benn. ñaar aussi nga tey mieux vaut nga nekk foo xamante ni. dañ la nga jox sa cër sa gëdd. da ngay nekk foo xamante ni dañ lay gën a sa cër bi ñu lay wax li nga soxla doo ko jot dëgg dëgg dëgg muy cër. mu cër dafa baax si doomu aadama yëg-yëg dafa baax si doomu aadama. maire dafa la joxul considération dafa baax si doomu aadama. maire dafa la joxul cër. waaw joxul cër joxul la cër considéré wu. waaw moo tax lu tax lu tax mhm. man j' du ma gêné wu. Mhm. dugal sama réseaux sociaux sama page Facebook surtout moom publication bi. waaw sama publication bi ma def si Ndofène. Mhm. depuis bi ñuy ànd ba tey. ba tey ko dem di nga ko fa gis. gêné wu ma pour wax ni Ndofène moo baax moo yar moo def lii moo def lii. kon tamit foo gisee loolu boo demee si Malem ak nawleem mm-hmm. ya muy àndal politique si département bi ba mm-hmm. nga ne Malem moo mel nii moo mel nii moo mel nii mu nekk dëgg nag mm-hmm. mais boo xuma nag nga wax ko boo xam da nga koy def pour jay Malem soxlaa mu ko mais na nga ko wax mu nekk dëgg ñu xam ni yow yooyu général le problème de l' alliance pour la république wala ses responsables c'est le problème de générosité ne sont pas généreux responsable yi nekk biir jàmm gën si lamba biir APR biir APR jàmm gën si lamba APR yëpp APR yëpp ci Macky Sall commencé problème de générosité waxuma Macky Sall ñi nga xam ne moom la Macky Sall jox ay doomu Maltagne ne sont pas généreux. man la yaakaar ah yow la majorité ne sont pas généreux. surtout le parti mun na daal non bul wàññi li nga wax ñi fa nekk ñëpp. la majorité ne sont pas généreux. waaw comme wàññi nga ko dafa mel ne Mbale am na lu muy sóoraale quoi. non sóoraale ma dara. xam nga sóoraale ma dara boo ne maa ñi fa nekk ñëpp. sóoraale ma dara. lu tax sóoraale ma dara xam nga moo tax xam nga moo tax man Dieu a fait que ñoom mënuñu maa jox lu ma amul. lu tax affaire mun la jox lu amul maa ne. maa ne amoo poste directeur. amoo poste directeur amoo poste ministre. nga ne affaire ay poste yoo xamante ni. li koy may lenn kese la. lan la intelligence masse benn mbooloo. mbooloo intelligence moo koy am nga loolu am nañ intelligence am nañ mbooloo. kon ñooñu li ñu nekk mën nañ ko nekk te dañ koy nekk incha allah. man la am na ambition dem élection maire. lu gën a raw am nañu ambition lu raw loolu. très bien avec le temps bëgg naa jeune kontaan nañ ci bon Pape. Mhm. Pape tey aar jàmm gën si Gambaaw. joxe na ay ci Covid bi. dimbali ay nit mhm. ñu gisaat ko aussi ci inondation mu dimbali ay aar jàmm gën si Gambaaw fan la jële ay fonds la moo nekk ci ginnaaw. waaw aar jàmm gën si Gambaaw ñu bari ñu ngi koy wax nag mais kenn nekkul ci ginnaaw. fan la ñuy jëlee xaalis. ah mais ci biir membre yi rek. non membre yi Pape Pape Pape membre yi cotisé wuñ nag. membre yi fa nekk non membre yi xoola Pape dama bëgg man. Mm. affaire yi leer quoi. waaw non non aar jàmm gën parce que yi amuñu luñ cotisé. non nit ñi ñooy wax rek nit ñi ñooy wax quoi. mais membre yi ñooy cotisé jàppal ma jàpp. yaa ngi dégg waxuñu nag ku nekk lii nga indi. mais hmm. lépp membre yi ñooy cotisé ak ñi bëgg mu baax quoi. ci biir membre yi ni tey bëgg mu baax mu def lii ak lii. mais wékkuwuñu ci kenn demuñu aussi non wax dëgg yàlla amul benn ñu ngi koy wax nag mais amul benn politicien boo xam ni mu ngi ci aar jàmm gën si kàmbaaw li may wax bu fekkee am na ku ci ku ci nekk mën na ko mën na ko wax parce que ñëpp a koy seetaan loolu amul amul benn politicien boo xam ne aussi ñun tamit bootu nañ ci ginnaaw ah. waaw nekkuñu fi pour kenn loolu tamit pour mu leer ànduñoo kenn bootuñ ci ginnaaw kenn d'accord waaw léegi-léegi da nga ni moom bu mbooloo bi taxawee mhm. ne la dañuy def élection yow lañ jiital nga dem élection waaw mais Pape Gueye gis ni caution bi dix millions mhm. pour l'instant loolu la ñu waxoon waaw ak ay frais de politique est que aar jàmm gën si kaam am na xaalis non aar jàmm gën si kaam yàlla am na lu ëpp loolu non xam nga mbirum yàlla moom buñ ko bëggee waaw léegi dama koy teg ne mais bis buñ ci tolloon waaw buñ ko soxlaa aar jàmm gën si kaam baaw joxe Pape Gueye bis bu aar jàmm gën si Kaba ko dañuy dem élection. Ah. Pape Gueye hmm. dina am 10 yu mu demee. non du doon Pape Gueye yu mu demee ko. mu demee élection waaw ah, bu neexee yàlla dina am. su dee aar jàmm gën demul moom nañ ko xaar mu jàppale benn. waaw mën mën loolu mën na nekk. mën nañ xool xam ni kii ñun moom la ñu wóolu. Mhm. te doy nañu ñu ànd ak moom. Mhm. loolu lépp aar jàmm gën si Kaba mën na ko def. ah Pape Gueye gis nañ tamit chaque jour hmm. commune jàmm gën seeka baaw nit ñi dafi jot ay litige foncier mm-hmm. sama kër jaay kii dem ba gis nañ tout récemment euh, moo di ba commando fee ñuy dem mm-hmm. tribunal ñu comprendre mm-hmm. comme yow yow yaay président aar jàmm gën seeka mbaaw suñu terrain yooyu ñuy caxat-caxatee lan nga ñu ko mën a wax waaw xam nga dossier boobu nga wax noonu bu maire bi man mi auditionné nañ ma si plus de six fois ah bon waaw dossier maire boobu ngay wax première kii bi dossier bi am ah. Biya Ndaw la Biya Ndaw hmm. Mouhamed Ning monsieur le maire hmm. ñoom ñoo taxaw dem procès ñu àtte waaw ñu ngi moo fa nekkoon ak Biya maire demul woon avocat moo fa nekkoon bi mujj hmm. ñett yëpp ci laa bokk ba ci soit transmis bi mujjee jugee police bu yëmbal procureur yónnee ko police yëmbal man ci laa bokkoon yow lan nga ci waa man maanaam dama dama terrain bi xeex bi dama ci fésoon parce bi dama bëgg ñëw ci sookum terrain lan moo waral parce que damay dégg Ndofène dafa jaay terrain paa bi ne nga dégg Ndofène ne jaayuma damaa toj hmm. parce que paa bi amul autorisation de construction lan laa su waaw xam nga xam nga problème mu terrain bi ñun bi ñuy indi Fatou Mbaw fii hmm. bi ñu ñëwee ñu ngi fekk terrain en face élevé yi fi nekk cité Brac actuellement foofoo nekkoon terrain wu Fatou Mbaw bi ñu demee ba jëmmi jamono hmm. euh, sunu papa Mbaye Gueye ñaan yàlla mu yëkkati ko Ah euh, demoon ci ablaay Matar Diop. Mhm. mu commencé woon ñu miireel terrain bi. colonel bi nekkoon gendarmerie génn ni fii dara du fi nekk. Mhm. ñu arrêté di fa entraîné ba benn moment si lañ ñëwee def ko cité barak ñu dellu ci terrain ba la defa football. Mhm. ñu fay football aussi lébu ay lébu yu jógee yëmbal daan nañ ñëw di ñu wax ne ñoom ñoo ko moom. mais problème mu terrain bi ci li ma ci maîtriser man ci li ma xam ci parcelle wu Mori yooyu ak euh, maire. ah man de gisaguma foo xam ne moom la ko maire jaay. tamit nit da ngay wax sa diggante ak yàlla quoi. Mm-hmm. Mm-hmm. ndax maire bokk nañu toog man moom Mouhamed euh, ñi ngi seex xar ma bureau commissaire. Mm-hmm. ñu jëlee ma terrain face indi ma. ñu indi soit transmis bi nga xam ne mooy bi maire tojee. seen problème par rapport ak man li ma gis mooy démolition dafa am fu muy jaar. waaw dafa am maire ñëw na. Euh, am ñu mu topp topp waa Fass Mbao ci seen bëgg-bëgg. Mhm. yaa ngi dégg doon leen xeexle terrain bi ñëw toj yooyu. Mhm. parce que bi mu ko bi mu koy toj jaar woon fi mu war a jaar. Mhm. loolu moo waral mais waa ji porte ko plainte ñu nekk ci loolu ci audience yooyu lañ nekk mais jàpp naa ne bu fekkoon da ko jaay. yoon gis acte de vente boo xam ne maire jaay na ko. yoon dina ko jaay. suñu suñu soi-disant problème ak moom. ok ne cinq ans mi après day gaañu jeex parce que est ce que nekkul daa am loo xam ne ko après day gaañu te su fekkee mandat dañ ci yaakaar dara. waaw hmm? cinq ans bi kon doon doon demandé ñu defee deux ans la ñuy taxaw laaj bi ñuy laaj. parce que ay termes sax yu yu nga xam ne moom ak ay nitam yàgg nañ ko utilisé ñu chantage ak menace ñu daw menace ñu daw chantage. mais loolu am tey su fekkee chantage rek la. waaw ñu de deux mille quatorze ak deux mille dix neuf. Ah, non da ngeen pourcentage bi ko joué ngeen ko joué jubóole nañ leen deux fois. troisième bi la kenn ku on a vu pas mal ah, leer non docteur docteur. dañuy dañuy leeral moo da ngay booy leeral da ngay wax ak internet. mais damay leeral. yan oow nga am oow nga jógee. soo ma déglu affaire du leer. a déglu rek damay ñëw pour. am na ay offre nañu wax offre yi kan ak kan. damay ñëw pour leer. na leer dafa war a leer ñëw pour mu leer. Mhm. waaw xam nga moo tax mu leer. gis nga politique bi nga xam ne lépp loo gis rek problème bi fan lay jógee mooy fan d'ambition su amee. Mballe am bon profil Mballe mu ngi waxee ne mu ngi waxee ne est-ce que Mballe bu ko poussé du waay peut-être am na ñuy xalaatee loolu. am na ñuy xalaatee loolu. donc question boobu après nga def ko question bi am na ñuy xalaatee loolu. Mhm. ñaar aussi nga mhm. tey. yéegoo nga nekk koo xamante ni mhm. dañ la la jox sa cër sa jënd ngay nekk koo xamante ni dañ lay gën sa cër bi ñu lay wax li nga soxla doo ko jox dëgg dëgg dëgg ñuy cër ñu cër dafa baax ci doomu aadama yëkkëg dafa baax ci doomu aadama considération dafa baax ci doomu aadama ñaar dafa la joxe cër waaw joxu la cër considéré waaw moo tax lu tax lu tax mhm. man j du ma génne wu mhm. dugal sama réseaux sociaux dama passé bi moom publication bi sama publication mooy def seen loolu depuis bi ñuy ànd ba tey hmm. ba tey ko daal diñ ko bëgg ñu gëneewu ma pour wax ni Ndofène moo baax moo yaru moo def lii moo def lii hmm. kon tamit soo gisee loolu soo demee si Malé ak nawleem hmm. dañuy àndal politique si département bi wax nga ne Malé moo mel nii moo mel nii moo mel nii mu nekk dëgg nag mais boo ko mën nag nga wax ko boo xam da nga koy def pour jaay Malé wax waa ma mais na nga ko wax mu nekk dëgg nga xam ni yow yooyu génère ndax problème bi daal yaa ko daal public wala c'est responsable les problèmes de générosité ne sont pas généreux responsable yi nekk biir jàmm gën Siramba biir APR biir APR jàmm gën Siramba APR yëpp APR yëpp ci ma problème problème de générosité waxuma Macky Sall ñi nga xam ne moom la Macky Sall dafa ay ndombal tànk ne sont pas généreux la majorité ne sont pas généreux non bu wàññi nga wax ñu fa nekk ñëpp. en majorité ne sont pas ko dafa mel ne Mbale am na lu muy sóoraale quoi. non sóoraale moo dara. amoon na sóoraale moo dara boo maa ñu fa nekk ñëpp. sóoraale moo dara. sóoraale moo dara xam nga moo dara xam moo dara man. Dieu a fait que ñoom mënuñu maa jox lu ma amul. lu tax affaire mun la jox lu amul Mbale. Mbale amoo poste bi noonu. amoo poste directeur amoo poste ministre. nga ne APR ah, ay poste yoo xamante ni. ñu koy may lenn kese la. intelligence man benn mbooloo mbooloo intelligence moo koy may. xam nga loolu am nañ intelligence am nañ mbooloo. kon ñooñu li ñu nekk mën nañ ko nekk dañ koy nekk incha allah. man am na ambition bu gën élection la. lu gën a raw loolu. am nañ ambition lu raw loolu. avec le temps bëgg naa jënd loolu kontaan nañ bon Pape. Mhm. Pape tey aar jàmm gën si Gambaaw joxe na ay ci Covid bi dimbali ay nit ñu gisaat ko ci inondation bi dimbali ay aar jàmm gën si Gambaaw la moo nekk ñu bari ñu ngi koy wax nag mais kenn nekkul ci ginnaaw fan la ñuy jëlee xaalis ah, mais ci biir membre yi rek. non membre yi Pape Pape Pape membre yi ku wuñ nag. membre yi non membre yi non Pape non Pape xoola hmm. Pape affaire yi leer quoi. waaw non non arjàmm parce que membre yi amuñu luñ cotiser. non nit ñi ñooy wax rek mais membre yi ñooy cotiser jàppal ma jàpp. yaa ngi dégg waxuñu nag ku nekk lii nga indi. Hmm. mais lépp membre yi ñooy cotiser ak ñi bëgg mu baax quoi. ci biir membre yi nit ay bëgg mu baax mu def lii ak lii. mais wékkuwuñu ci kenn demuñu ko si non wax dëgg yàlla amul benn ñu ngi koy wax nag mais amul benn politicien boo xam ni mu ngi ci arjàmm gën si kàmbaaw li may wax bu fekkee am na ku ci ku nekk mën na ko mën na ko wax parce loolu amul amul benn politicien boo xam ne aussi ñun tamit bootu nañ ci ginnaaw ah. waaw ñu fi pour kenn loolu tamit pour mu leer ànduñoo kenn bootu ci ginnaaw kenn d'accord waaw léegi léegi da nga ni ma bu mbooloo bi taxawee mhm. ne dañuy def élection yow lañ jiital nga def élection waaw mais Pape Gueye gis mhm. pour l'instant loolu nga xam ay frais de politique est que aar jàmm gën ci gàmm am na xaalis aar jàmm gën ci gàmm yàlla am na lu ëpp loolu non <laughs> non xam nga mbirum yàlla moom buñ ko bëggee. mais bis buñ ci tolloon. waaw buñ ko soxlaa si gàmbaaw kon Pape Gueye bis si gàmbaaw ne ko dañuy dem élection. waaw Pape Gueye hmm. mu demee. non du doon Pape Gueye mais aar jàmm gën si gàmbaaw lay doon 10 millions demee. bu bu neexee yàlla dina am. su dee aar jàmm gën demul mën nañ ko xaar mu jàppale benn. waaw mën mën loolu mën na nekk. mën nañ xool xam ne kii moom la ñu wóolu. Mhm. te doy nañu ñu ànd ak moom. Mhm. loolu lépp aar jàmm gën si gàmbaaw mën Pape Gueye gis nañ tamit chaque jour euh, euh, commune Diamaguène Sicap Mbao nit ñi dafiy jooy ay litige no kër jaay kii dem ba gis nañ tout récemment euh, Modou Ba commandeur bi ñuy dem tribunal ñu comprendre comme yow yow yaay président aar Diamaguène Sicap Mbao suñu terrain yooyu ñuy caxat caxatee lan nañu ci mën a wax waaw xam nga dossier boobu nga wax noonu du maire mm-hmm. man mi auditionné nañ la si plus de six fois ah waaw dossier maire boobu ngay wax premier ki di dossier bi am hmm. bi andaw la bi andaw hmm. mohammed ni monsieur le maire hmm. ñom ñoo taxaw dem procès ak leen waaw ñu ngi moo fa nekkoon ak biyaa maire dem woon avocat moo fa nekkoon bi mujj ñet yépp ci la bokk ba ci soit transmis bi mu jee jugee police yëmbal procureur ya, yónnee ko police yëmbal man ci la bokkoon yow lan nga ci waaw man manam dama dama terrain bi xex bi dama ci pésoon parce que terrain bi dama bëgg ñëw ci sooxum terrain la lan moo waral parce que damay dégg Ndofène dafa jaay terrain paa bi ne nga dégg Ndofène ne jaayuma damaa toj parce que paa bi de construction lan laa su waaw xam nga xam problème mu terrain bi ñun bi ñuy indi Fass Mbao fii mhm. ñu ñëwee ñu ngi fekk terrain en face LV fi nekk cité Brac actuellement foofoo nekkoon terrain bu Fass Mbao ñu demee ba jëmmi jamono mhm. euh, suñu papa Mbaye Gueye ñaan yàlla mu yëkkati ko Euh, demoon ci Ablaye Matar Diop. Mhm. mu commencé woon ñu miireel terrain bi. colonel bi nekkoon gendarmerie génn ni fii dara du fi nekk. Mhm. ñu arrêté di fa entraîné ba benn moment si lañ ñëwee def ko cité Barak. ñu dellu ci terrain ba la def football. bu mhm. fay football aussi lébu ay lébu yu jóge yëmbal daan nañ ñëw di ñu wax ne ñoom ñoo ko moom. mais problème mu terrain bi ci li ma ci maîtriser man ci li ma xam ci parcelle wu móor yooyu ak euh, maire. ah man de gisaguma koo xam ne moom la ko maire jaay. tamit ni da ngay sa diggante ak yàlla quoi mm-hmm. Mm-hmm. ndax maire bokk nañu toog man moom Mouhamed euh, ñi ngi seet xar ma bureau commissaire mm-hmm. ñu jëlee ma terrain face indi ma ñu indi soit transmis bi nga xam ne mooy bi maire tojee seen problème par rapport ak man li ma gis mooy démolition dafa am fu muy jaar dafa am yoon waaw xëy na maire ñëw na euh, am ñu mu topp topp waa Fass Mbao ci seen bëgg-bëgg mm-hmm. yaa ngi dégg doon leen xeexle terrain bi ñëw toj yooyu mm-hmm. parce que bi mu ko bi mu koy toj jaar woon fi mu war a jaar mm-hmm. loolu moo waral mais waa ji porté ko plainte ñu nekk ci loolu ci audience yooyu lañ nekk mais jàpp naa ne bu fekkoon da ko jaay yoon gis acte de vente boo xam ne maire jaay na ko yoon dina ko c'est bon coordinateur même s'il est à des plages, même s'il ne veut pas renouveler, même si coordonnateur national amul courage ñëw renouveler parti yëpp fii projet yi nga xam ne au niveau national dafa mel ni nangu nañ ko nangu nañ ànd ak moom nangu nañ ni moom mooy coordonnateur donc aussi nangu nañ bi ànd ñu jiite teg nañ ci aussi bi muy nekk coordonnateur mhm. benn forum aussi dañu nangu woon jël parce que ñu jiite ko nekk suñu coordonnateur ci forum boobu ñu nangu ànd ak moom liggéey teewul aussi kon ñun comme ne Malle nangoo ko ko jiite kon loolu jeex nañ lay produit yaa gën a ànd ci d' accord loolu parce que tontu boobu man convaincre wu ma quoi Pape Gueye mhm. Pape Gueye aar jàmm gën si Kambaaw Pape Gueye yan intention la est que Pape Gueye aar jàmm gën si Kambaaw mouvement politique la ou bien mouvement waaw aar jàmm gën si Kambaaw euh, mouvement la boo xam ni Euh, maanaam mën nañ ni mouvement politique la mouvement politique nañ ko wax waaw parce que actuellement adduna moo toll foo xam ni hmm. politique ñëpp la war hmm. parce que su fekkee dem nga ba gis loo xam ne tey hmm. mënu la convaincre ci commune bi am nañ droit ñu wàcc si le terrain pour politique ok waaw boobaa mën nañu wàcc mais ak ay politique ay politique waaw ban façon politique politique politique de développement politique de maanaam jàppale askan bi dox ci li askan bi bëgg politique boobu la ñuy dox ak fexe ni Diamaguène Sicap Mbao dem ca kanam. Hmm. parce que Diamaguène Sicap Mbao mooy li ma la sànq rek. Hmm. dafa bari loo xam ni daf fi manqué. Pape Gueye est-ce que amul intention dem élection. pour l'instant pour nekk maire non non pour l'instant. nous avons ambition. mais suba mun na nekk. waaw maanaam tey damaa damaa tënku hmm. ci. ci ci ci ci kuréel. tey bu ma demoon. ba kuréel gi ne lii day am te yow lay doon mais dama ciy ànd ak ñoom. kon suba aar jàmm gën si Tamba bu ñu nee dañuy dem élection pare nga pour dem. buñ mën buñ mënee woon yow lañ jiital pare naa pour dem parce que mouvement la boo xam ni. maanaam sa xol quoi mu ngi sama ndax mbooloo moo jiital ma. maanaam du sama du sama njàmbaar wala sama dara. Hmm. maanaam euh, kii la rek. suñu borom mooy mooy mooy tànn dara def ko ci doomu aadama mbooloo mi ne yaa leen doy mbooloo moom bu ñu ba jiital la rek ñoom ñu la gën quoi. waaw aar jàmm gën si Tamba. Hmm. ñu gis mën na fi combat. Hmm. est-ce que ay combat yoo xamante ne dem ko ci dara ndax combat yi mu dem yëpp mën nañu da ko gagné amul lu mu parce que ar jàmm gën si gàmbaaw hmm. premier combat bi mu njëkk a génn hmm. mooy bii ñuy joxe eh, aide alimentaire yi ñuy joxe ceeb bi hmm. conseil municipal bi nga xam ne dafa bokkoon ci ñun bi mu ko jëlee dafa ñëw wax ñu ko ànduñu si mu ànd ak ñun dem delloo ko waaw mais Pape Gueye nag foofu mm-hmm. est que dinaa nangu ak yow parce que mm-hmm. Mm-hmm. dafa mel ni ceeb boobu chaque année dañ ko doon joxe waaw dafa mel ni coow bi mu amee entre El Vision ak waa mairie dem delloo ceeb boobu waaw xam nga ceeb moo waral loolu est-ce que loolu c'est pas c'est man ne pour ko mën a jàppee mooy politique politique diggantaan politique politique loolu dëgg ngeen sax du parce que ceeb bi ceeb bi dañ ko jox maanaam dañ ko ko jox ba pare moom bëgg ko mettre mal ak ñun parce que dañ ñu ko wax ñu ko jox ñoo ñu ko wax. mais yeneen yi joxoon nañ ko ceeb bu tey. yeneen yeneen yi yeneen yi daan na ko non moom bi mu li mu wax mooy. daka daan maye. te te te am nañ ci lu leer. ndax ceeb bi ñu ko ko joxee bi ñu koy jëli ñu ko jëli ci benn femme handicapée. Hmm. fekk nañ ko sax mu utiliser brosse suukar bi. yaa ngi dégg kon yaakaar naa ne comme daka daan maye parce que dafa ne ko jëlul tamit dañ koy jox ñeneen. loolu moo waral ñu dem jël ceeb bi delloo ko. mais acte boobu. waa nan lu ko mën a jàngatee ngeen jël caméra jël télé yi Facebook dem ko est-ce que nekkul ne da ngeen doon ut tur. non non dañ doon wan doomu aadama yi. dañ doon wan doomu adama yi que lii jaarul yoon. mais li tax mu jël ko est-ce que jarul woon jaroon na mu jël ko. li taxoon mu li taxoon mu jël ko. Mhm. maanaam que bi ko ko joxee mooy li ma la dañ ko diaboliser ak ñun. Mhm. waa aar jàmm gën si Kamba ñu ngi fiy nekk di wax seen benn membre jël na. Mhm. loolu lañ ci jublu woon quoi. parce que yooyu gars yi dañ koy def muy ay politique. yaa ngi dégg. yeneen ak yeneen yeneen combat yi aar jàmm gën mën yëpp amul ci perte amul boo xam ne daf daf ko perte parce que ñun tamit nekkuñu fi que pour maanaam contrecarrer le maire non non gis nga bu defoon suba lu bu defoon dara loo xam ne Ar Diamaguène da koy féliciter mm. dañ koy féliciter ñu mm. nekkuñu fi pour moom il faut loolu leer mm. dañ fee nekk pour Diamaguène Sicap Mbao bépp Diamaguène Sicap Mbao du maire bi kese moo fi nekk mais am na ñaari député tey c'est c'est rare am na ñoo xam ne boo leen laajoon ndax Diamaguène am Sicap Mbao am na la déedéet ak directrice ah, ak directrice Mm-hmm. yaa ngi dégg mm-hmm. mais député yooyu nga xam ni tey aar jàmmagën si jàmmagën si kàmbaaw lañ dëkk lan lan lañ defal jàmmagën si kàmbaaw lan kon daal da gis ne ar euh, jàmmagën si kàmbaaw dañ leen dara dara defal est loolu waruñu pointer du doigt le président Macky Sall waaw mais loolu xam nga tey président mënut a yëg lépp président mënut a lépp dans les les plus informés mais loolu wax la rek les Sénégalais xam nga xam nga loolu wax la rek parce que tey bu président waroon ñëw tey Kër saar mën nga jël preuve keroog lay am bi président di ñëw ñu jël ay nit ci jëlee leen ci ay quartier mobiliser leen yóbbu leen pour ñu teer ko mais loolu kooku nan lay xamee parce que tey waa Kër Massar am na lu ñu ko téel mais mënoo xam ñan ñoo ko téel ndax tey ñi ñuy indi dëkkuñu fa mm-hmm. loolu mënoo xam lépp quoi mm-hmm. noonu la demee mm-hmm. tey inondation am ngir jàmm gën ci Kambaaw ñu gis Pape Gueye ak équipeam ñu jàmm gën ci Kambaaw dem ci camp monsieur le maire leen carburant Pape Gueye lan lay yóbbu foofu exactement xam nga loolu mooy wane ni nekk nekkuñu fi pour xeex ak maire gis nañ bi inondation amee am na ci tey ay zone yoo xam ni yaa ngi dégg jàppale wuñu leen même su fekkee ni que ñu ngi leen di jox yenn kii yi hmm. mais mais bi bi bi loolu amee hmm. ar jaamagat si Tamba dafa ni na na na yaa ngi dégg xool lan la mën a jàppale ñi nga xam ne ñoo nekk ci ndox mi mais du du du parti maire kese jox nañ ko ñeneen ñu dul parti maire. parti maire mais est ce que bëgg a def libération parce que mm. ñi nga jox. Mm. ñooñu bi dañoo dem fekki maire. Mm. nekkul ñoo far maire dañoo dem fekki maire. est ce ko pour récupération politique suba. parce que yow tamit yow businessman nga da <laughs> ngay investir suba. non du du cadre boobu sax wallaahi bi ñu koy def. waaw c'est juste pour jàppale leen pour wan leen ni ñu nekkuñu fi que. pour xeex parce que ci lu baax lañ ne. am na ñeneen opposants nekk tamit di nekk ci ndox mi. mais ño ñooñu nekk ci ñooñu nekk ci ndox mi ñu ñi ci gis ñëpp ñu ay opposants tamit liñ ci war a def def nañ ko. Ah. def nañ ko. waaw ah, baax na comme jàmm gën si Kamba aussi. xëy na ñoom dinañ teg yeneen jéego yoo xam ne ñu ngi leen ciy gën a xaar docteur. maa ngi remercier rek si invitation boog am ambition deuxième mandat mm-hmm. xam naa ni chef de cabinet lu mu amee njëriñ si politique mm-hmm. munoo am chef de chef de cabinet wala amoo possibilité ñi ngay àndal wóolu wóolu ba def leen chef de cabinet est ce que yow am nga réellement ambition deuxième mandat est ce que taxul ngay def lu la neex mais man question question bu ma la laaj rek loolu yëpp man mën naa la tontu ci question bi non mooy yow da la cinq ans boo xamante question la mais mais xam ne yow cinq ans boo xam taxaw nag question laa lay amoo directeur de cabinet. mais quand même d' accord. directeur de cabinet bi de cabinet boobu ba léegi. Malick laa jox ko d' accord loolu. des amis. am nañu la. loolu moom nañu ko xam. Zelatim aussi. kenn xamagul lu mu bëgg. Zelatim sama xarit la. ok yaa ngi déglu kuréel yi. seen passement bi dina doon Pape Gueye. d'accord benn témoignage si moom hmm. rek. parce que nit la aussi comme ni ngeen ko gisee nii. nit ku engagé am fit. Hmm, hmm. jàmbaar bëgg ko xam aussi. te lépp lu mu am ngay di ko am. Pape Gueye nekkee candidat du ko jàpp. non dégg nga li ma la wax. question la Pape Gueye. man xam naa ne su nekkoon maire maire jaam gën ci gàmbaaw ñoom dinañ jàppale fi est ce que bu nekkoon candidat dama ko jàppale su ma ko mënee jàppale dama koy jàppale su ma su ma ko mënee su ma ko mënee jàppale d' accord maa koy jàppale dina xam ñu ko war a jàppale ñu ko war a jàppale <laughs> dëgg la Pape Gueye ñu am contentement trop ah vraiment di ci disponibilité bi ak euh, li nga ñëw ñu bëgg xam euh, kaddu gu mujj gi lan la ko waaw kaddu gu mujj gi waa jàmm jàmm gën gàmbaaw lan lañ la mën a waa kaddu gu mujj gi moom mooy jàmm gën gàmbaaw waa tout dama leen di remercier ñoom ñëpp quoi hmm. parce que la ma waxoon chaque jour rek maanaam gënuma leen ba may jiital waaw ci liñ may xaar ñu ngi waxtaan ci ay projet yoo xam ne bëgg nañ ko fi def bëgg nañ fi def ay ay projet yu nit ñi teg seen bët daal hmm, hmm, di leen remercier yéen bu baax ci yéen tamit wax dëgg yàlla yéen a ngi wax suñu disponibilité mais yéen tamit noonu ngeen mel fu leen nit ñi soxlaa aussi ngeen wàcc ngeen wàcc sur le terrain quoi te lu mel euh, waroon na fi am bu yàgg quoi ñu leen di sant di ñaan yàlla mu dem ba nekk télévision bu mag quoi waaw bon xam naa ne mbégte ak contentement laay am man aussi ci mm. dalal sama ñaari ndaanaan yi mm. ñoom Fass Mbao lañ dëkk kontaan aussi ci seen disponibilité bu baax mu mm. docteur Malle xamante ni aussi euh, bien vrai que liggéeykat la tout le temps mi ngi sur le terrain tamit nekk ci di sensibiliser jeunesse bi nga xam ne moom fi nekk ak euh, grand Pape Gueye moom aussi lépp loo xamante ni intérêt commune bi la mi ngi ciy dox suba ngoon guddeeg bëccëg mbégte ak contentement laay am bu baax aussi di féliciter sama PDG El Hadj Lo ak euh, sama doyen Aliou mi nga xamante ni moo nekkoon ci technique bi di leen jox rendez-vous très bientôt incha allah ci beneen émission vision ensemble merci beaucoup. El Vision Médias El